exemple Ismaïla Madior Fall hmm, dafa ñëw mu ne niil ne peut faire niil niil ma ne eh kii de ab Fall Fall la xam nga Moussa Fall ak Ismaïla Madior Fall mi ngay gis ak Sidi Bara Fall mi ànd ak Mimi Touré ñooñu dafa am ñoo kajoor lañ faali mooy Madior Diak ma kodd ak Madior mhm. dégg nga décc fu mhm. ñooñu dafa am nuñ mel gis nga ab faal-faal du wor du fecc kóllëre du fenn d'accord léegi nag ma gis Ismaïla Madior mhm. ñëwaat nekk faali Madior ba noppi ñëwaat taxawaat ci kanamu pénc mi daan ne man la ma waxoon lépp génn naa ci ñu ne waaw ndax da koo gëm ñu ne noonu dañ koo jox poste bu bees boo xoolee def naa ci analyse man ne ko yow famille bi nga bokk man kenn laa ci musta gis mu wax di waxet dee moo leen ko gënal fàttali ko démba léegi nag yow lan moo tax nga def lii man bi ma del bi ma waxee loolu man xam naa léegi li tax mu def loolu duma ko wax ci télé mais man xam naa ne ak faalam du faal du faal faal original la yor waaye xam naa li war a mën a tax muy wax di ko waxet ndax te boo fayee téléphone boo buñ ko fayee dinaa la ko wax loolu kenn du ko wax ci télé. kenn du ko wax ci télé waaw waaye xam naa ko alors pourquoi